defal te yàlla dana la ko fay maa ne dégtal ma élément bi jëkk ñu seetaan ko dellu si waat àndaat ak yéen ci li nga xamante ni mooy seen biir émission ubbil leen téléphone yi nag ànd koog yéen ci 88 628 69 cent 00 221 33 841 09 31 comme ni ñu amee habitude di ko àndee ak yéen seen élément ngeen seetaan ko ñu dellu si wat yi ni ñu leen ko waxee rek gis ngeen trajet bi nga xamante ni def nañu ko lépp nag euh, mu ngi am ci biir Sénégal soriwul Dakar dara ndax boo génnee Tëngéej euh, jëm fi nga xamante ni mooy njar ci daaru njar euh, kër Serigne Mor ja mu nekk nag bërëb boo xamante ni jàpp nañu ne émission kër gi yemul rek ci ñi nga xamante ni ñooy nekk ci kër gi waaye nag daf ci am ñoo xamante ni tàggalikoo nañu ak seen xel ñooñu itam bokk ci ñun am solo lool ci ñun ñu am fuñ leen teg. waaye nag am na ci ñoo xamante nii fii ci Daaru Njar euh, rawatina ki ñu fi fekk di euh, Serigne Cheikh Dia yor euh, ndono gi mën moom la ñu mën a wax sax xilaafa gi wutu fii ñi nga xamante ni ñooy ay waajuram wuutu bu rafet yor itam ñi nga xamante ni ñooy malaat mental yi maanaam ñi tàkkalikoo ak seen xel mu doy waar lool waaye nag comme yegsi nañu ci këram fii nga xamante ni mooy daara ji bëgg nañu xam téléspectateurs yi seetaan 2STV yi lan moo fi nekk naka la ñuy jaar ba jàppale leen waaye itam naka lañuy def itam ba bàyyi xel ñu mel nii nga xamante ni seen lépp dañu ko jël jagleel ko doomu aadama rawatina doomu aadama bi tàggali ko xelam te li muy def yéeme lool euh, Serigne Cheikh maa leen lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi tax la barakatuhu yéen mbokk yi noo ngi leen di nuyu lu bari noo ngi leen di santit bu baax ci seen ñëw gi ngeen ñëw ci barab bii di Daaru Njar. nekk barab boo xamante ni sëriñ tubaab moo ko joxul ndigal sëriñ Mor Dia mu sañc barab bii sëriñ Mor Dia yàlla may ko baatin boo xamante ni dafa am wàll woo xamante ni yàlla la ko caa dimbali woon ndimbal moo xam ni ku fi mës a ñëw jaaxle ci yooyu wàll dana la ci dimbali ak yeneen wàll sëriñ Mor Dia mi ngi sanc fi 1902 ba 1960 la soog a wàccub liggéey yàlla dogal na it li nga xam te yit moom la fi maam yi bàyyi woon nu daan ko gëstu ci ay wàll yu bari sunu waajur it yar na ci loolu di sëriñ Mamadou Dia ndax sëriñ Mor Dia bi nga xamante ni yàlla dogal na muy faj mboolem ñu am wéradi xel ku mës a jaaxle lu mënti doon it du tee mu ñëw mu ñaa la ci woo wàll waaye nag wàllu wéradi xel yàlla da ko ci mayan may goo xam te ne sa janoo yoo xam la dal xam la koy faj dal lay dimbali ca loola ba loola baatin boobee it bi mu fi yàlla dogalee mu fi ba ma bàyyi ko di fi bàyyi ko it mu jox ko sëriñ Momadou Dia sëriñ Momadou Dia it képp ku mu sa feebar ak feebar bu mënti doon soo dikkee bu dee bu ko seetee muy wàllu woo xamante ne wàllu war di xel la mu ñaanal ca la yàlla faj ko waneen wàllu mu mant doon boo ko soxlaa it soo ñëwee ci loola mu jàppale mu dimbali la ca loola ba loola faju ba dañ daan jóge fu nekk ci réew bu nekk dañu fa daan jóge di ñëw ci moom bi yàlla dogalee moom it mi nga xam mi bëgg a wàcc liggéey lamu ma woo man seex ni ma léegi li ma bëgg lii nga xamante ni day baatin boo xamante ni maa ngi ko jëloon ci sa maam yoon wi nga xamante ne moo koy maye teg ma ca yoon woowee yoon woowee te laa tegu ba bésub tey bii ba fi mu nekk doomu aadama yu bare ngi ni yoo xam ne fu ne la ñuy bàyyi ko di fi ñëw ñii wér nañu ñibbi ñii dem nañu ba tane nañu ba delluwaat seeni kër di jël si ay garab ñii ñu ngi dem ba yàlla defal na leen ak wér ba ba ñoom seen ba ba ñoom ñoo ngi seenub liggéey ñii yàlla defal na leen ak taneet ba ñu ci biir kër gi am na ci ñoo xam ne dañ leen fii door a andi biñ leen fi indee it noonu it noo ngi saytu ak ñoom di leen jàppaleen di leen dimbali ba yàlla mën la ne defal leen jàmm ndax eh, nekk na ñoo xamante ne la leen fi tax a ñëw seeni bokk dañuy dem ba jaaxle mënatuñu leen a yor ci seeni kër ñuy yor ay ngannaay di di yàq di di fa yàq di yor ay ngànnaay di di di fa dóore bàyyi ñoom seeni waajur dañu mujj am jaaxla jaaxle gu toll ne attan koo génn attan kooka pour mu dem yoonam am nañu bari ñoo xam te ni dañ leen di for seeni waajur génn leen ngir ñàkk ma ma nekk seeni kër bañu ñu leen for andi leen fii ci noonu nu it nu xam ne lii yàlla moo nu ko jagleel nu téyal ak noom ak fa mën a bàyyi ko ba li war ci nun nu war koo def sa diggante ak yow loolee nag dem na ba fi mu nekk diis na ci nun ndax li ko diisal mooy bala place yi nga xam ni mooy yi ñu war a mën a dëkkee yooyu manqué na li nga xamante ni mooy wàllu dund bi it jamono bi ak jamono bi fi mu toll loolu it métti na li nga xamante ni it mooy wàllu ci gën a it am solo mooy dëkkuwaay ak it euh, sibbiru yi nga xamante ni dafay am nawet te sibbiru yooyu saa bu amee doo gis seen kenn kenn ku ci sibbiru yaa ko bu dee war naa si yaa koy jënd bu dee leneen lu mën doon yaa koy topp tool boole ko ak di ko dundal boole ko garab ya ngi koy defal ndax doo gis mel ne mbokkam loolu lépp it nekk loo xam ne da nga koy te li waral ni def loolu lépp it fekkoon suñu maam di ko def fekkoon suñuy bàyyi di ko def moo waral ni di ko def am na solo yaa ngi wax lu am solo ci ñi nga xamante ni rek ñooy malade yi ni ñu fi nekkee euh, mu mel ni que seen i mbokk léeg dañ leen fiy fàtte parce que boo yoree koo xamante ni dafa taxali ko xelam nga teg ko fenn daw dem est-ce que jàpp nga ne loolu yenu na maanaam waa loolu li koy waral dafa ci am ñoo xam ni dañoo dem ba sonn ba jeexal ci àll bi ci ñeneen ñoo xam ne dañ leen di nax ci li demee noonu ba ba ñoom du ñu amati benn pexe moo xam te ni lu dul bàyyi leen rek ñu ñu génn dem moo leen di may jàmm ndax am na ci ñoo xam te ni dañuy dañuy dégg nit dem fa kooka kooka lam leen di wax du bokk ak la ñuy man ñoom it ñu xam ñu dem di wër di dem di wër di dem ba ba jeexal tàkk amatuñu fenn fu ñu jëm ñu dégg barab bi ah yërmande ji fi nekk ak taxawaay bi fi nekk ñu andi leen te noonu mën na bàyyi doomu adama ndax doomu adama yàlla moo ko màggal moo waral bu ñu dëkkee it ñu di leen saytu la ci man ne du ko def ngir yàlla waaye nag taxul nit ñu am te moo xam te ne day bàyyi ko fenn ci ci lenn loo xam te ne da leen war a mën a saytu. na nga yor sa nit mu feebar nga dem teg ko ci bërëb xam ne mi ngi ci bërëb ba pare doo ko fa fekkee ceeb doo ko fa fekkee yére du garab ni dara nga teg ko fa ci nit rek fàtte ko ci noonu est-ce loolu jaadu na kooku it jaaduwul ndax doomu adama bi ko yàlla sakkee wàcce ko ci yow dafa am lu mu la sant lam la sant moo di kii ma wàcce ci yow wërsëgam man-manam kartanam léppam yaa koy man koy mën a yaa koy mën a saytu ci moom yaa koy mën taxaw ci moom ba keroog muy mënal boppam bis bu demee ba mënal boppam ba mën a liggéey nag su boobaa war-war yi nga xamante ne moom la warloo sa diggante yow mi waajur nga def ko waaye am na ñoo xamante bu seen njaboot xisee toll foofu dañ leen daal bëgg génn njaboot ga pour ñoom ñu mën a féex am jàmm wàcc ñooñu ñuy nekkee di taxawal ci àll bi. wala xadd karam naa bani adama lu yàlla bind lu nekk doomu adama ko ci gënal kon soo sàgganee doomu adama bi bu ëllëgee yàlla dina la teg fitna soo dimbalee doomu adama bi ci ca fa mu toll nag su ëllëgee yàlla dina la dimbali ci ci bis boo telee ci sa bopp mu dimbali fa mu jeexalee waxtaanam mooy li nga xamante ni moo sabab euh, ñu yëkkati tomb waxtaan bi ci émission kër gi muy rek euh, ni mu ko waxee euh, mu nekk kàddu yu am solo doomu aadama bi boo ko dimbalee yàlla dimbali la boo ko taxawul itam bis dina ñëw di nga soxla ko la taxawu te la nga leble woon loolu lañ lay fay te nag taxawu defe naa ni weesuwul ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bërëb boobu mu nekk nag loo xamante ni defe naa ni ministère de la santé daf ciy ëmb ci biir nekk itam loo xamante ni état daf ci war a mën a dugal loxoom ndax wax naa ne subvention bu ñu ko waxee ci wàllu sante wax ne rek ñu ngi jox ci hôpitaux yi ñu ngi jox nangam ak sàngam am na ci ñoo xamante ni tey boo demee ci hôpital ya boo leen fa fekkee hôpital mënul ci ñoom dara ndax dañu nekk ñoo xamante ni am na lu yàlla may ñenn ñi te xëy na peut-être mayu ko tubaab kon bu fekkente ni ubbi nañu bërëb bu mel nii di ci dalal ay doom aadama yu mel nii wax dëgg yàlla nag balaa ñuy wax wayjur yi waay jur yi sarte ñoom ñoo jiitu ndax nag bu fekkente ni danga am sa mbokk mu nekk ci kër gi daan mën ba mënatul wala nga amoon yaakaar ci moom xëy na yàlla indiwul yaakaar jooju mu dugal wéere di nga dem ci bërëb teg ko fa wax dëgg yàlla nag kala ci aw am na nemmeeku wala am na taxawu goo xamante ni moo war a mën a am sa diggante yaak moom waaye itam subvention bu ñu ko waxee état jëmee ko ci wàllu santé santé nag dafa ëmb lépp ëmb na ñi nga xamante ni ñu nga kër docteur waaye ëmbaale na itam kër yii nga xamante ni dafa yëngu ci lu mel nii waxuma garabu garabu de euh, parce que boo ko déggee ci biir waxam euh, wax na ne euh, léeg-léeg li tax way way jur yi léeg di ñëw di indi seen i doom di ko fa bàyyi wala mbokk yi di ñëw di indi seen mbokk di ko fa bàyyi dafa fekk ni xëy na peut-être léeg dafay fekk ñu jeexal takk ndax démb wax naa ko benn mbokk fii nañu def très attention ci léeg ci yenn ci maaman yi mën naa nangam mën naa nangam nga dem yóbbu fa ki nga xamante ne dafa tàggalikoo ak xelam mu ne la mën naa koo faj jox la ay garab laaj la nangam ak nangam sangam ci koppar nga jël koppar yooyu wëlbatiku jox ko tekki say gànjar jaay jël say yére jox ko jël yére yi jaay lu ngeen amoon yéen ak mbokk yi ngeen dajale ko jël ko jox ko nit ki te fekk na booba yàlla du ca def saafara nga dem nag ba xëy na peut-être amatoo dara amatoo dara loo jaay.